voilà bocage beurre bi ci vitamines yu bëri moom ngay toggee Alphie comme chaque matin tey ñu jël ay beignets de saucisse yoo xamante ni pap ma nga noonu di eh, ñor ci pool bi mm-hmm. eh, waaye nag bu bëggee boo bëggee xam eh, naka la ñu def ba am texture bi nga xam ne moom ngay seen noonu ci pool bi mu rafet loolu ànd ak ay baton brochette da may da may may léegi nii ma génnee yi nga xamante ne ñoom laa jot a dugal parce que ñoral ko du du du kii bi wutuñu résultat boo xamante ne pour ñorool ko la mais plutôt pour indi ci benn coloration bu doore la dinaa la wax lu tax ñu ñu ñu jël ñu jël choix boobu donc li may def mooy que damay génnee ñaar yi nga xamante ne euh, jot nañu seen euh, seen texture bi ñu bi ñu bëgg maanaam aspect dorure bi nga xamante ne moom la ñuy cherché donc dañuy seppi daal di koy tegee li ci papier absorbant yi pour mu pour mu naan ko donc wàññiwaat gaz bi laataa yeneen yi nga xamante ni moom la ñuy defar ñuy ñëw di dugg ci biir ci dugg ci biir pont bi donc ni ñuy def ba am ko mooy que dañu jël euh, pomme de terre yi nga xam ne ci suba démarré nañ ko ba xalal ko suñu bopp pour mën a réaliser suñu purée bopp parce que man damay bëgg fii yeewu lépp ñuy defar purée yoo xamante ni purée fait purée de pomme de terre fait maison la parce que pomme de terre mbay bi ñëw na mi ngi fees dell ci dëkk bi euh, di jar téeméer te seerul loolu da ngay dem ñu defal sa ay saaku yu ndaw yoo xamante ni yow yaa koy jël baxalal ko sa bopp ginnaaw bi ñu ko raxasee euh, ba mu set daal di jël ndox def ci bàyyi ko mu mu tàng ñu baxal ko donc bi mu génnee ñu daal di koy pressé ak sunu presse euh, pure bi nga xam ne moom la ñu am euh, pour am pure bu wow bi loolu nag boo ko bëggee moom la ñu moom la ñu pressé def ci xorom def ci poobar euh, sànni ci tuuti li nga xam ne moom mooy persil di dama la koy jege si nii laataa ñuy ñëw ci saucisse yi damay jël tuuti persil ak persil chinois daal di koy def ci biir et puis jël jambon de dinde fume moom it andi ko ci biir pour mu ñëw andi benn texture bu neex boo xamante ne euh, laataa ñu ciy def saucisse euh, moom la ñuy moom la ñuy am donc mi ngoog jambon bi li ñu daggat ba mu sew moom la ñuy jël def ko ci biir ci biir purée bi et puis continuer continuer ko mélanger pour mu mën a ñëw recevoir euh, saucisse yi nga xamante moom la ñu enrobé ak fromage bi nga xam ne moom la ñuy faral di gis ci bu ñuy defar hamburger yi. donc li ñu def nag ak les beurre bocage nga xamante ni ñoom chaque matin dañuy andi benn recette bu bees tey nag euh, xam ngeen chaque matin dañuy ñëw aussi bien que recette sucrée wala recette salée beurre bocage daf ciy dugg à 100 pour cent ginnaaw bi ñu ko euh, jinnee ci li nga xamante moom mooy ndékki bi parce que ku ne pain bokk na ci yu ñu bëgg euh, donc jël nañ suñu pain beurre pain ci suba daal di koy ndekkee li ci des nag moom la ñuy dugal nii ci biir recette bi pour mu ngeen pour mën leen wan ni beurre bocage dafay dem ci recette sucrée dem ci recet salée foo ko woo rek moom mu wuy la fa donc li ñuy def tam mooy que dañuy jël euh, ay saucisse ci suba euh, hot dog yi nga xam ne am na marque Coutubia moom it mu nekk marque marque bu baax boo xamante ni dañ ciy jam pic brochette yi nga xamante ne moom la ñuy faral di utiliser mooy brochette u bant yi donc li ñuy def mooy que dañuy jël benn brochette rek daal di koy jam ci biir saucisse bi donc lool lan la ñuy permettre mooy que suñ koy lekk soxlawu sax ngay jël couvert dangay am Euh, bâton bi moom ngay téye et puis mën a lekk mën a xamp am am benn quelque chose boo xamante ni non seulement dina tax xale yi lekk mais tamit mag yi di ci mën a lekk te ñu sonn benn yoon loolu mooy première étape bi et ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy fromage yi nga xam ne en général moom la ñuy utiliser pour di ko def ci ay burger muy fromage bu bu bu bu mool bi moom la ñuy jël daal di enrober li nga xam ne moom mooy saucisse bi donc ça c'est mu nekk deuxième étape bi et puis euh, bu ñu tollee fii maanaam gis nañu saucisse bi moom la ñu jël fromage bi daat ko ciy def dañuy tibb tuuti ci euh, euh, purée de pomme de terre bi nga xamante ne def ñu ci meew def ñu ci beurre parce que dañu bëgg quelque chose de solide quelque chose boo xamante ni dafay dafay am teneur daal di jël nag li nga xam ne moom mooy brochette bi brochette bi ñu def fromage bi daal di ko ciy enrobé et puis wërale ko ak pomme de terre bi ba nga xamante ni euh, dootuñu gisati fromage bi mi ngoog c'est ça l'idée mooy que dañuy dañuy emprisonner fromage bi ak euh, ak euh, saucisse bi hot bi ci biir mi ngoog donc andi nañu tey boo xamante ne bu dend la andi beneen boo xamante ne moom moo am couleur bu rouge boobu nga xam ne moom lañu moom lañu am. et li ñuy def mooy que dañ koy garder au frais duñ ko jël nii rek saaf ko dañ koy bàyyi ci frigo bi ba nga xamante ne xaw na figé parce que pomme de terre la ñu wax sinon su fekkee da nga ko jël directement saaf ko dafay tas dafay am tendance euh, pomme de terre bi dafay bàyyeeku et puis nga am quelque chose boo xamante ne du am teneur donc suñu tollee bi dañ koy dugal au frais ñu defaraat beneen mi ngoog donc mi dañuy jël tuuti ci pomme de terre bi. daal di jël euh, euh, brochette yi nga xamante ne moom lañu ñu def hot bi daal di koy def ci biir mi ngoog donc damay def bu gën a yem boo xamante ni Euh, moom la ñuy jël euh, moom la ñuy servir d'exemple laataa ñuy dem jëli yi nga xamante ni jot naa ko dugal ci frigo bi pour ñu mën ko ñëw nag pané daal di koy soog a saaf donc bokk na ci euh, ay recettes yoo xamante ni mën nañu wax limite ay recettes décoratives la mais ferñeent yi nekk ci biir tamit jàppal ni am na solo parce que pomme de terre bokk na ci légumes yoo xamante ni moom la ñuy gën a consommer ci monde entier bi yëpp à part ceeb bi nga xamante ni moom la ñuy faral di am ak li nga xam ne moom mooy mboq donc dañuy jëlaat ñaari pomme de terre yi laataa ñuy defar yi nga xamante ni moom la ñu am ci plan de travail bi ñu dem ci frigo bi jëli yi nga xam ne moom la ñu njëkkoon dugal te ñoom sedd nañu mi ngoog donc li ñuy li ñuy l'idée l'idée l'idée mooy que bu ñu buñ ci paree da am quelque chose boo xamante ni dafay figé quelque chose de solide boo xamante ni suñ ko euh, saafee du tas et puis ñu enrobé ko ci biir nen bi mi ngoog mélangé ko def ko ci nen bi et def ko ci chapelure bi benn ñaar puis def ko ci chapelure bi mi ngoog ah waaw et jël troisième bi quatrième bi daal di koy def ci euh, chapelure bi maa ngi koy wax sànq koor bi mi ngi ñëw ñu bëgg soxla ay recette rapide yoo xamante ni euh, dañ koy faral di euh, bëgg jey na ba pour mën a am loo xamante ni ndogu yu vite fait la laata reer bi di ñëw xam nga boobu sante jàllo ba mel ni Pape Cheikh léeg-léeg moom ndogu nga xam ne da nga war a ubbi sa bër sa biir moom dafay foog ne da nga war a lekk ba suur moo tax muy teel a gaañu noonu avant nga avant heure reer bi di jot donc parce que jàllo la sant jàllo jàllo yee mel noonu ñoom bu ñuy lekk duñ ci demee ndànk euh, heureusement ba ñun ba ñi ngi fi leen di leen mijoteel et leen jox ay conseils yoo xam ne du ngeen gaañ seen bopp parce que ñoom bu ñu déggee weeru koor bi rek dañuy feebar Jeynaba waaw ñu ngi fi mu nekk nii ñu commencé feebar Pape ay waxu om yooyu muy wax yëpp euh, weeru koor bi di jege si la rek donc dawlin bi tàng na à souhait mi ngoog ñu daal di jël nag euh, brochette beignet yi nga xam ne moom la ñu def daal di ko ci dugal saaf ko mi ngoog et puis euh, li ma wax jeene ba mooy ko benn coloration bu dooree lañ ci soxla euh, pas pour togg ko parce que ku ne purée xam ne ñor na ba pare euh, saucisse bi ci biir ñor na ba pare fromage bi ainsi de suite donc dañuy wut benn coloration boo xamante ne bu dooree la et génnee ko lekk ko ak sunu sauce ketchup sauce barbecue wala sauce mayonnaise maison boo xam ne ñun ñoo ko defaral suñu bopp pourquoi pas ñu jël benn crème fraîche boo xamante ni ñun ñoo koy def def ci xorom def ci citron daal ciy def tuuti herbe aromatique pour mën ko accompagner ak beignet de saucisse yi ne moom lañu ànd donc Baye Cheikh xam naa ni li la desee euh, ci temps bariwul donc le temps que may cappaat ni quatrième bi di ko dugal ci dawlin bi fekk ngay yeggali nii buñ paree jàll ci dégustation euh, privée bi comme nga ni tey dañ koy yàkkal sa sa xarit boobu sëy na bu defe naa nga ma wax waaw moom sëy na bu fay waa defe naa su ma jumalee moom nga ma wax sànq donc moom lañ koy hmm. yàqal mi ngoog et puis bàyyi ko mu doore laataa ñu koy ñu koy ñu koy génnee Baye Cheikh mu ngoog euh, Alfi ñu ngi lay gërëm bu baax on va déguster bu ca tuuti comme ça ngeen jeexal ko yow ñaatam ak euh, Jayna Ba mu ngoog parce que ba ngeen sant euh, da ngeen dem ba wàll sax euh, Oumy Ndiaye madame Ba. Ah, <laughs> moom wàll moom wàll ngeen ko xam nga. ñooy ay njëkkeem. dëkkandoo sax ñooy wàllante lépp. xotobal <laughs> ak sa borom kër sant Ba donc da nga jël jikko ñi sant Ba ñoom maa leen di simbi donc on te retrouve tout à l'heure pour euh, déguster 10h47 mooy doog a jot j'espère qu'on aura du temps pour recevoir ñi ñu war a recevoir ñëpp ndax bu 11h jotee bëgg nañ leen sey Seyda Fane.